Niang yaakaar naa kenn dootu ko déwénoo la kenn ndax moom murid saadix euh, te euh, moom waa Ndar te moom bokk na si pilier yoonu Mouride ndax moom bokk na si ñu euh, si ñi nga xam ne maam ñoo jaayante ba murid bi am doole fi Ndar maire ma dëkk bi ginnaaw bi la ba noppi ren di quinzième édition bëggoon nañ nga delloo ñu tur sa diggante si Abdou Khabar Mbacke ak Ndar bu njëkk ba murid dañ daan doxee bu njëkk ba waaw jërëjëf d'abord ñu ngi leen di ndokkeel si télé bi ndax sëñ Touba àddina bi yëpp a ko war xam kon télé bi wax dëgg yàlla di Bichri TV ñun bég nañ si te gëm nañ ni njariñu mbindeef yi la ndax sëñ Touba ku ko xam ki nekk daa ci jëriñu te soo ci jëriñoo dana nekk ay yiw ak xéewal yu bëri yu sotteeku si yow sotteeku ci say mbokk ci sa askan kon wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax bi nu yàlla dimbalee ñu fekkee quarantième édition bi ndax lii bi biñ ko doon samp man maa gënoon tuuti si ku si bokkoon 76 lañ ko samp def première édition bi tey di 40e édition bi en 2015 kon sant naa Serigne Touba bi mu yàlla defee ma fekk loolu yëpp te yàlla na yàlla def ma fekkee waat ay yeneen édition ndax lii kat gëm na ni liggéeyal Sëñ Touba bu mat sëkk la ndax kat. ñaari rakk yi signification dafa bëri signification bi ëpp solo mooy bi ko sëñ Tuubaa jox mooy kennal borom bi rekk waaye nag ci biir loolu dëppoo naag sunna borom xam-xam yu bari daan nañ wax ni yonent bi sallallahu alayhi fu mu daan jëkk teg tànkam lu mu daan jëkk def mooy julli ñaari rakk kon Sëñ Tuubaa su waxee ni moom dafa fas yéene sunu turu Rasulullaahi jolli mu jëmale ko kanam kon lii rek doon na si exemple. ren parrain bi di Sëñ Abdou Khabar Mbacke mu mel ni yow uh, maanaam doon nga xam lu bari si dund Sëñ Abdou Khabar bëggoon nañ sa diggante ak Sëñ Abdou jàmbaar la joo xam ni mën naa leen wax lu bari ci ay mbiram ndax dama ko dund booba ay tuuti tànk la fii ndaam waaye na comme dañu juddoo ci yoonu murit bi mu ñëwee rek dañu daw jëm ci moom waaye sëñ Abdou Xafour dafa am lu ko yàlla defoon su toogee rek soo ko gisee te gëm yàlla tuuti nekk sa xol soo ko gisee rek daa xam ni kii ku seddu si boromam la nga daw jëm si moom soo dawee jëm si moom mu doon koo xam ni dafa ubbeeku dafa lay ubbil boppam xiir la xëcc la ba si boppam xiir la si yàlla xiir la si yonent bi sallallahu alayhi xiir la si sëñ Touba lii mu def si Ndar nekk na liggéey bu kawe boo xam ne moom tasaare na fi yoonu murit tey su fekkee ni kër goo fëgg sëñ Touba wuyoo fa kon sëñ Abdou Khafour liggéey na si lu bari sëñ Abdou Khafour li sëñ Touba jàngale rek la doon wane mooy gëm yàlla gu sell kennal yàlla gannaaw loolu mënoo xiir si liggéey soo doon jàng daf lay xiir si nga jàng di la ñaax si nga jàng ba képp koo xam da ko daan fréquenté bokk nga si ñi gën a doon réussir da ngay réussir ci école am ay diplôme loolu yëpp dafay jëmale kanam moom nekk na ko xam ni tànneef la woon lii mu def ci ndar tey tax na ni ndar kër goo fëgg rek sëñ tubaabu wuyu fa kon sëñ Abdou Khafour wax dëgg yàlla suñ demee ba ne quarantième édition baax na ñu ko man daan naa wax ni yéex na waaye lu tax mu baax day gën jëmalewaat kanam ñaari rakk yi ndax daanu fàttali démb nu mu def ak yoonu murit ni mu wéete woon daal ay ay ay mag yoo xam ni dañ leen di compté bëriwul woon ñoo fi doon taalibe tey nag sëñ Tuubaa tasaare na fépp moom liggéey na si lu bëri gannaaw moom góor yàlla Cheikh Mamadou Mourtada ñëw gën jëmale kanam liggéey boobu kon sëñ Abdou Khafour jàmbaaru sëñ tubaa la te am na leneen lu mu wane mooy sëñ Touba ay mbokk ma ko jëkk nangu kan mooy sëñ Abdou Khafour doomu sëñ Mamor Diarra mu ñëw ndar di fi wane sëñ Touba sëñ Touba di waajuram loolu amul lu gën kawe kon wax dëgg yàlla nekk na ko xam ni tànneef la si lépp. jërëjëf mbokk taalibe ginnaaw ba ngeen dégloo ma di ñaa mi nga xam man dama koy tuddee Mouride Sadi sax ñu ngi toog kenn si liggéey bi di Serigne Mouhamadou Lamine Gueye mi nga xamante ne moo di trésorier général bu ñaar rakk ndar yi Serigne Mouhamadou ginnaaw ginnaaw bi la nuyoo ba noppi gis nañu bës bi du bés bu ndaw te daanaka mën nañoo budget bi moom ay millions yéen euh, en tant que trésorier général yéen nan ngeen dundee bés bi ak euh, seen dépense si bés bi. Hmm. waaw jërëjëf d'abord damay lay sant bu baax ci laaj bi nga ma laaj xam nga nit bu nee ci mbir. ñeen fukki at li tubaab di wax ni war na ci am une certaine maîtrise de la chose dañ koy am c'est ce qui gravite autour du kuréel maanaam ñi toog ñu wër kuréel bi den di koy doxal dafa nekk ñoo xam ni dañ fi nekkoon ak mag ñi suñu borom dogal mag ñooñu dem ba at jàppaleen ñu rocc bay bàyyi ko ñun fekk na xam nañu rudiment yëpp fonctionnement comment faire fonctionner une structure euh, c'est des gens c'est des gens outillés et engagés et sur des la ñuy doxale magal gi le kuréel am na cent cinquante cinq sections à Saint-Louis et dans la périphérie maanaam li wër Ndar day nekk cent cinquante cinq sections section bu nekk buñ ko doon jël au bas mot mu dina togg di tolloog cinq cent mille francs faites le calcul vous verrez Nous avons, nous avons un, budget, un budget prévisionnel qui gravite autour de 41 millions. Donc l'État, l'État du Sénégal, c'est vrai qu'il nous accompagne, mais l'État devrait accompagner ce mouvement-là. Parce que Serigne Touba, modèle de résistance, la modèle de résistance, nous avons depuis le 5 septembre 1895, nous avons dafa doon wane taxawaayu Serigne Touba donc état du Sénégal lañ lay interpellé ñu war a jàppale kuréel ñaari rakaa yi koo xam ni ci benn dëkk benn ngoon yow rek yaay màggal ñun rek ñooy màggal julli ci àddina ah waaw la commune la commune de Saint-Louis nous accompagne à hauteur de 3 millions de francs or nos dépenses gravitent les 41 millions c'est infime par rapport à ce que nous donnons le marché du Magal de Daraka que la commune gère donne à la commune 20, 20, 20 millions de francs CFA. la comparaison, vous verrez que ñun kenn jàppalewuñu suñu journal la ñu am ak sunu cotisation bopp ak certaines bonnes volontés ak dinaa ci cité kenn koo xam ne membre fondateur la ci kuréel bi muy Madické Niang ba pare moo citaté woon keneen mi Cheikh Amar ay Saint-Louisiens lañu comme nous ils nous accompagnent voilà en somme ce que je puis dire à niveau maanaam loolu laa la mën a tënkal ci doxalin bi donc état du Sénégal war na taxaw taxawaay bu mat pour jàppale liggéey bi ñuy def fii ci dëkk bi waaw moo ma yar defal nu mu lu réexalul kenn war na ci fas tooguma war na ci fas tooguma ci ginnaaw fas bi jógee caari mbawoor ñëw bandañ dab ma maag sama yaay ñuy dox ci yoon wi jëm gumba mu naw ba jam ma mu ni sama yaay indi ko ma jàpp ci loxoom mu teg ma ci ginnaaw fas wi ànd ak man ba ngumba mu sama yaay yéege naa ko kooku mooy sëriñ Abdul Xafoor moo tax màggal gi ma taxaw ci parce que ñaar rakk yu ñëw dinaa taxaw waaye ni ma ci taxawee ren sëriñ Abdul Xafoor a tax bu dul bis sëriñ Abdul Xaadir rek taxawu ma noonu parce que nag nit day fonk cëram ku ragal yàlla la ku maandu la ku am jom la ko donn maam Mamari Jaara mooy caatu maam Mamari Jaara nag bi maam Mor Jaara jàkkaarloog Sëriñ Tuubaa nangul ko lim ko nangul moom ci la gane jamono maam Mor Jaara ko jur waaye mooy doomi Sëriñ Tuubaa waaw ko moom. bismilaahi mina dellu di santaat Serigne Touba Mbacke mi sunu yaakaar tey ak ëllëg dellu di yeesalaat bu baax a baax sunu jëbal Cheikh Massamba mi sunu buntu ci Serigne bi di am mbégte bu baax nag ci teewaay bi ñu teew fi tey ñu teewaay jaamu yàlla ñu teewaay dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa muy bis boo xam moom ci la ñuy màggal ñaari rakk yi nga xam ne tedd ki julli woon ci birom ndar ba lii li muy tegtale mooy li tubaab bi bëggoon amu ko tey tubaab bi li mu bëggoon su ko amoon tey li du am kon jërëjëf Serigne Touba ñu ngi sant yàlla bu baax di sant ci ki ñu tuddee bi muy waa kër Maam Mor Jaara magi mag li yaakaar naa lu war a mën a nekk umma islam bépp lañ ko defal te ñëpp rafetlu nañ ko moo tax ñu déplacé wa Touba ba ñëw ànd ak waa daayira Ahlu Café Touba ñëpp fas yéene séddale fii café tay ak suba ngir jëmmi Serigne Touba jëmmi Serigne Mame Mor Diarra doomam bis bi sant yàlla bu baax nag di ñaan ku fi teew yal na yàlla faj aajo di ñaanal Bichri TV ñoom it yaakaar naa ne ren li ñu ànd bari da fu ñuy dajale Serigne Touba tase nañ fa ak ñoom fii ba Suisse ba Italie ba France kon ñoom dañuy xamal télé bi télé bi Serigne Touba la xasida gi ñu wuyu na ko ndax lii rek mooy tegtale loolu kon ñoo ngi leen di ñaanal rek barke Bichri fu mu egg ci bu ko Serigne Touba bindee rek fu mu egg ci barke ak i xéewal ak teraanga ak jàmm buntu àjjana yi ci ne ngeen egg fa yéen ñëpp ci barke Serigne Touba di sant personnel bi ba mel kafe taxawee ci bisub euh, jàmbaar ju baax ji nga xamante ne bii. tudde nañ ko Mame Mor Diarra te ku nekk xam diggante Mame Mor Diarra ak sa waajuru baax wa yàlla booy la ak sa taalibe yi di awlu café ci àdduna wërngal këpp nga ànd ak ñoom ana nu ngeen taxawee ci bis bi. maanaam ni ci taxawee ni ñu taxawee ci bis Serigne Touba yëpp lañ ci taxawee ndax boo xoolee yoon wi rek boo ñëw da nga gis waa ahlu café Touba ci yoon wi ñuy séddale café daanaka démb ba léegi ñu ngi fi ànd ak waa daayira bi di séddale café comme niñ ko defee ci comme ni ma ko waxee woon léegi ko ànd ak ñoom ba suba fas yéene ko ànd ak delluwaat toog di dégluwaat ndigal. jëmm ji ngeen jàkkaarloo nag mooy sëñ Xarim Mbacke moom Cheikh Abdou Khabour Cheikh Abdou moom nii lañu ñu fay euh, na màggal ñaar rakk yi euh, Mbacke ginnaaw bi la nuyoo ba noppi gis nañ seen waajur bu tedd bi li mu tuddee euh, ñaar rakk ren di quarantième jour bi. seen waajur bi tamit jëf jëf ju rëy bëggoon nañu xam yéen maanaam ban sentiment de satisfaction ban toofee ngeen am si bés bi bu ñu tuddee seen waajur bu tedd ba. ليوم المر والديار تسعد سعيد سلم بالسلام الفادل هذا الذي سميته بفادل ردة لرب المساكر وليكن طرف كل كافر أنا demel egg nañ ci ci pàndaw bi nga xam ne kon dina ko sant yàlla ndax mboolem lu ñu ci foogoon gis ci lu koy suñu yoon suñu yaakaar day mel ne bu ñu seen fukk gis nañ téeméer kon nag mënuñu def lu sant di sant nag mbokk yi xam ne ñoo ñoom ñëpp wuy si di sant mbokk taal bi nga xam ne ñoom ñëpp wuy si nañ di leen sant yéen waa Bichri TV bis bi daal ku fi ñëw tey da xam ne suñu jàmbaar Cheikh Bassa Fall liggéeyam na boromam waaye suñu borom fay ko xam naa bu ñu ñëwee bëccëg dinañ gën a yaatu kàddu waa jox kàddu gi mooy sëñ euh, Ahmadou Sougou di seeti sëñ Ndiir Walan Sougou ndax xam nga ni sëñ Ndiir Walan Sougou ku yàgg jëflanteeg sëriñ Tuubaa Xaadimu moom daanaka teew na fi euh, teewal fi waa këram nañ koy daal jox kàddu gi rek mu daal di amee kàddu yu mu sànni diggante euh, waa kër sëñ Ndiir Walan Sougou ak waa kër sëñ bu Xëfar Mbàkke ak diggante ma en tant que li ñu nekk doomu seex si teew gi mu teew fii si ñaar rakk ndar yi. Eh, di ziar ñëpp waaye di ziar bu baax a baax seen tele bi nga xamante ne mooy Bichri TV muy télé bi nga xamante ne eh, télé bi Cheikh Ahmadou Bamba la xam liggéey Sëriñ Touba rek moo leen ñor kon boo leen ñu laajee sunu lu waral ñu ñëw fii dana doon loo xamante ne danañ ci sawar tontu ñëw nañ fi ngir yàlla ak kóllëre ñëw fi ngir jëmmi Sëriñ Touba waaye ñëw fi ak sunu diggante ak Serigne Khadim Mbacke mi nga xamante ne mooy doom Serigne Abdou Khafour di sunu xarit di sunu wëllëre woo xam wëllëre yàgg la wax dëgg yàlla ñu ñëwoon fi ngir yàlla ak jëmmam ji ñëwoon tamit ngir barkeelu ci li nga xamante ne moom la fi Serigne Touba jaaroon julli fi ñaar rakka yooyu ma ñëw fi nag teewal fi njabootu waa kër sëñ Jiri Wadane Sougou yëpp teewal fi timit teewal fi képp koo xamante ne waa daan nga dëkk ñu ñëw fi ngir bàkkeeru si bis bi ñu ñëw fi nag ñëw boo xamante ne ñëw taalibe leen fi ñëw waaye ñëw fi ñëw tamit ñëw boo xam ñëw barkeeloo leen fi ñëw kon mu mel ne wax dëgg yàlla ban fi ñëwee tamit liñ fi gis lépp seet na suñu xol lool ndax liñ fi gis mooy li nga xamante ne tey bu fi ñëwoon tamit kenn du sopp sa toogaay ndax jataayu murit lañ fi fekk jataayu diine leen fekk jataayu lislaam lañ fekk kon suñu xol seet na bu baax a baax waaw li ñu def ci ñun bari na ndax tey ku xool jataay bi rek da nga xam ne tey sëñ Touba kese nga fi fekk te njabootu sëñ Touba gi fépp fu ñu dem rek sëriñ Touba lañ fay fekk buñ fa gisul sëriñ Touba doo fa gis te tey ku gis tant bi gis sëti sëriñ Touba yi ni mu toogee njaboot doomi Cheikh si ni mu toogee da nga xam ne maanaam jataay bi sëriñ Touba yi kese moo ko lal sëriñ Touba yi kese tamit moo fi indi ñëpp kon ñun sëriñ Touba rek rek lañ sentir tey jii. ci jataay bi loolu wax dëgg yàlla moo taxit sunu xol seet na bu baax a baax a baax a baax a baax di leen ñaanal yéen waa Bichri TV nag yàlla yàggal leen fi yàlla may leen ngërëma sëriñ tubaa yi nga xamante moom rek ngeen sàkku dëgg yàlla xolu taalibe yëpp seet na ci yéen alhamdulilah. Euh, joxaat ki nga xam moom sëñ Omar Fall euh, moom sëñ moom sëñ Saliou Fall mi nga xam moom la ñu woon bisu démb bi xanaa daal di ko jox taat daal di koy déglu rek. Euh, di leen sant bu baax di leen gërëm ci turu. Serigne Dame Fall Saliou xalifa maam Saliou Fall Daaru Xafoor daanaka wax ji du jar mu gudd dañoo ñëwoon ci bés bi nga xam ne dañ koo tuddee maam Saliou Fall rakk Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina te comité bi nga xam ne ñoom ñoo yor ñaari rakk ci Ndar ci njiital sëñ Ahmed Fall jiite ko ngir fàttaliku ñu baax ñi nga xam ne dañoo ŋànk lislaam gi mu mel ni bés boobu nga xam ne bësu parrainage la ci ngontum Cheikh Ibrahima Fall ñu tuddee ko maam Saliou Fall mi bokkal ndey ak baay bu am solo la waaye li muy màndargaal mooy tawxiid kan mooy ndax ñaari rakk yi ci ndar ku tedd ci Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul radiyallaahu anhu wéetal boroomam gëm boroomam dëggal boroomam gëm yàlla xam yàlla moo waraloon loolu ndax ci jamono yooyu du ku jóg mën a def lu mel noonu waaye wéetal gum wéetal boroomam gëm gëm boroomam sant gum sant boroomam moo waral conseil boobee nga xam ne ay tubaab ñoo ci ëpp ci jamonoy colonisation fii ci Ndar mi nga xam ne mooy ancienne capitale AOF muy fii ñu toog tey jàkkaarlook palais bi jàkkaarloog bureau gouverneur wax dëgg yàlla loolu du ko jóg def lu mel noonu kon Serigne mi ko def sant nañ ko ci gërëm nañ ko ci ndax loolu mooy indi libération nit ku ñuul li wér mooy taxawaay boobu moo tax ba tey lislaam jëm ci kanam ñuy wax ay tarixa fii ci réew mi ba kenn complexeetul tubaab yi loolu na ko ñëpp xame noonu kon acte la boo xam ne na ñëpp nangu ne lu am solo la ci diine waaye tamit ci développement ak cim réew du jar ma ci guddal li wér mooy Baye Fall yëpp sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak délégation sëriñ Ndam Fall Saliou mi nga xam ne doom na ci sëriñ Saliou Fall yi doom ci Ibrahima Fall teewoon na ak njabootu maam Saliou Fall gépp ak seexi kër sëriñ Saliou Fall gépp ak bépp jullit yëpp ak taalibe yëpp ñëw nañ ngir dëggal loolee wone seen jàpp ci loolee ba tax na mel na nam mel ñu ci sant ñëpp di ci gërëm ñëpp presse bi ñëpp jàpp nañ ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa tey nag muy bésu sëñ Abdou Khafour sëñ Abdou Khafour di doomi Maam Jaara Maam Jaara di magi Serigne Touba. Maam Mor Diarra mooy Serigne Touba Serigne Touba mooy Maam Mor Diarra kon bés bi bésub Maam Mor Diarra la kon buñ ko buñ ko dara jaaree Maam Mor Diarra bés bi moo tax wone na ko nit ñaa ngi ni fees fi dell bari lool lépp ak taalibe lal ko ñu ciy sant ñëpp di ci gërëm njaboot gaa ngi ni sëti Maam Mor Diarra yëpp ngi ni sëti sëñ Abdou Khafour yëpp ngi ni ki fi teewal sëñ Sidi Mokhtar sëñ Cheikh Bara Lahat a ngi nii ñëpp a ngi fi presse bépp a ngi fi ah, du jaar may guddal xayran kàllaama xadda wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu xalif général ku lu yónnee nag. kenn musu laa lijjanti ci Touba dem nañ ci ak préfet bu gore bi te yaru xam ngeen ni meeru Ndar Mansour Faye délégation mi ngi fi dafa tukki woon waaye xam naa ne mi ngi ñëw wàcc na parce que démb ba léegi directeur de cabinet am seen mi ngi jokkoo man ni ma nga wax mbooloo mi Mansour Ndar rek laa Mansour Serigne Touba xam na ne ko yàlla defal te nangu na ko la mu defoon daaw da koy yokk ba pare ñëw mi ngi ci yoon bi di ñëw. directeur woo na ma ñetti yoon ak kan maître mi dikkee ñaan awoo ko Xaadimu Rasuul taalibe Sëñ Bamba ku xam sa diggante ñaari rakk yi ak ni nga ci demee yaa gëm Sëñ Bamba yaa ko wóolu yaa dëkk ndax moom itam ñëw na ak délégation yi fi rot ci yéen. seet naa sëriñ bu sa yilimaan wax may ma man ma wax ak Dangote neel Dangote mii jumaa jee mu romb ca Touba mu yokk ci ñaari soroor mu juróom ñaari soroor def na ca 7 milliards nee ko jumaa ji ca Ndakaaru def na ca 7 milliards nee ko li mu tàmbali yëpp na 7 milliards te xoolal nag moom Dangote mii moom ci taxaw kaw lay fanaan kilomètre banque nee ko sëñ bi moom ci mbaarum seng la ne ku defal loolu islam ba fi mu nekk ci baal seen daa ngute ni waa ji wax na dëgg de man na fi mu nekk kilima seen yëpp mooy rek nga ne ko kii nag kii lim du tàkk Cheikh Sidi Mokhtar muy si mooy borom nan dafa noppi nag te am baatin waaye bu bëggee mu am mu am bu bëggee mu am bu bëggee mu sotti mu sotti waaye dafa doon sëñ Bamba ciy jëf te doonu ko ciy wax sëñ Tuubaa waxul dafa jëf diggante Ngor ak Kirène Ndakaaru jëf la Lamar na jëf la Maayom naa jëf la Port Santi jëf la Cheikh Sidi Makhtar mi ngi jëf waaye wax kon ñu daal Omar bismillah